xam nga des fois ñu sant la liggéey sax nga bañ mais fee lépp loo fa def obligation danga ko war a def par force gisoo yaay gisoo papa gisoo kenn donc le fait rek yow ñu jëlee la ci kër yóbbu la ci kër buñ lay muur bagage doo ko fa wàcc am na ñoo xam ne parents yoo xam ne sax dañ la naan lal moom amatoo ko fi néeg amatoo ko fi yaa ngi dem jàpp ni dootoo ñëwaat soxlawuñu dara ci yow dangay dem loolu rek je pense que dafa dafa xaw a daw yaram buñ buñ la muuree nag say bàjjan ak ñi xam ne ñoo lay jël si ñoo lay yëpp ci oto daal di lay yóbbu bu ci kër gi bu ñu toogee ak kilifa yi ne ah ñu ne suñu doom a ngi ni jigéen de matul daal di expliquer dañ la koo dénk wax ñoom tamit ay wax yu rafet ci diggante ñaar ñi nga xam ne ni ñoom ñoo war a euh, euh, sëy mbokk yi tamit saafantoo waxante lu baax bu ko defee ñu baal lay jël jébbal la sa jëkkër am na nag bu njëkk ba muur yoo xam ne ay euh, kaara topp ñuy wax bu dóor bu saaga jabaru américain lañ la indi genre yooyu. <laughs> man moom loolu mi ngi am ba tey. waaw am na ñuy naan sax écho bi la ñuy laal laaluma kii. ñu boole que man sama la. <laughs> Eh, parce que je man. moom <laughs> non écho sax moo sori nag. man man asma je suis ah, anti bruit ah, man. yow dooy xaar écho bi wala. non man moom écho maa ko fi xaarul daal. ah yow tu nous annonces que avant le mois de. de juin. tu seras mariée. ah man maa leen ko annoncé. Ah, man ngeen di sosal en direct nii. xaaroo ko. da lay sa rubrique. man ngeen sosal en direct nii. <laughs> bintu bu fi nekkoon leeral ñu lu bari ci éco. waaw éco moom éco <laughs> moom kuñ ko takkee moom. nga ah. hmm. gaw ma ni di nga neex la daal pour. éco rek des indices c'est bien. conseil bi du neex daal bu la takkee éco. waaw xanaa xale jigéen ñi ma wax leen rek ngeen def lu gën a gaaw baat parce que éco kuñ ko takkee di am sérieux problème. ok d'accord sérieux problème donc Euh, dañuy top lay topp ak Ndiaga Ndiaye yow ceet bi di di am ñu del bool di tëgg ak yooyu noonu personnellement man je j'aime pas phase boobu moom neexuma ci trop parce que di nga da ngay déranger. est que du firndeel ni jigéen ñi dañoo tànkale c'est ça qu'on dit. non dañu daf leen tànkal. non elles elles sont non les femmes elles sont bruyantes. elles sont brillantes de ah, notre ah ok dañu ok. yoo léeg-léeg mais mais mais mais non mais non c'est pour juste arrondir les formes loolu dana nekk aussi mais de bëggoon naa xam ndax muur nañ la ba xam sensation bi nga yëg parce que xam nga li tax parce que li mais loolu dafa neex ci jigéen jigéen bu nekk ñaan nga yàlla nga sëy ñu muur la par exemple tey jii nii mu am na ñoo xam ne mun nañ toog deux ans après sëy ba pare deux ans après ñu leen di soogaa ji muur mais bu ñuy jooy vingt ans mais bu ñuy jooy sax duñ ko tey parce que muur moo diis moo pour te dire importance bi nga xam ne muur da ko am ci sëy c'est pas par force dañ la takk tey tey tey que dañ lay muur ndax léegi ñu sax ñoo ko fi xaarul dañ lay takk le le soir nga daw lim dem yaa ànd ak sa jëkkër du ko leer du ñu am sa jot jafe-jafe yi bare c'est vrai on tout faire ak ak xam nga tubaab tubaab mm-hmm. tubaab lu muy def da koy xam ñun nag dañuy def ba pare di xool est-ce que mais man est-ce que. non c'est que cest dire que pourquoi aussi cette vague-là dans la nouvelle génération da nga daan gis ni bu ñu la muuree la plupart des jeunes filles étaient vierges ce qui est en quelque sorte euh, en voie de perdition léegi nag sër boobu noonu bu weex bi ni ñuy génnee moo leen doon rusloo ba tax bëgguñu woon ñu leen di génnee mairie di way euh, c'était ça. bu ñu la donc après euh, dañuy daw. seen jëkkër de il faut aussi faut rappeler que seen jëkkër de daanu loon mën a xaar dañuy sàcc seen seet yóbbu. da hmm. doon am léegi moom xaaratuñu ku ñu sàcc ñun ñooy ñëw ñun ci boppam ñooy ànd ak xale ah, yi. waaw ñun moom ñoo génération tay bi ñun ñoo xaaratu ku ñu sàcc. te def kii bi nga laajoon góor ñi comment quel effet ça leur fait. waaw laajoon naa ko mu Mouhamed ndeysaan bële passé mu wax ne ma mbégte gi mu ci àndal parce que boobu dafa dugg ci beneen phase xam nga am mu leer na nañu ko léegi am na leneen lu koy xaar dañoo jël jigéen dénk ko ko n'est-ce pas asma dañoo jël jigéen dénk ko ko mu leer na ne lii kii li ko indi du ay caaxaan dafa wàcc mhm. kër papaam wàcc kër yaayam changer de nom pour lan pour benn góor donc le minimum bi nga xam ne ne mooy yor ko yor bu rafet am yërmande ci moom daka dalaa war yow mi nga xam ne ne yow yaay euh, ku ku góor ki beneen bi aussi mooy ñi dañuy wax ne pourquoi boo boo jëli sa céet góor ñi taxaw nee du fi jóge cousin yi surtout c'est très normal parce que dañ daan wax ci société bu njëkk ba ni cousin yi ñooy takk cousine yi donc ñoom boo ñëwee di jël si seen jabar yoonu yàlla dañ wax ne la non du fi génn ci noonu dañuy jox dañuy jox xaalis xaalis bu bëri c'est vrai léegi bu ko defee dañuy taxaw ci bunt bi baare ceet bi ne ceet bi du fi génn tànk joxoolee ñu xaalis léegi nag mun nañu commencer par exemple cent mille léegi négociation lay doon rek da wàññi ko waaye saa ñu dafa bëri xoolal li ñu def waaw. li ko sama doon wax. <laughs> waaw donc dafay bëri dafay dañuy négocier négocier ba keroog ñuy trouver terrain d'entente bu ñu trouver terrain kaw ñooñu waa kër xale bu góor bi yëkkati somme bi joxe. bu ñu joxee ñuy soogaa di bàyyi ñu ci ceeb bi. gën coow lu rëy ci page yu Sen TV l'officiel. ah bon. man man man dama bëggoon. Uh-huh. te di leen nuyu au passage aussi ñoom ci lañ. waay euh, seen kër la seen. li ma jaaxal mooy euh, am na benn aspect boo fàttee lan moo waral buñ naan jigéen buy sëy ji jëkkëram day sol jàllaabe kese. waaye boobu dinaa ci ñëw moom ak euh, li tax jigéen buy dem wasin go jëkkëram takk ceinture. mais moom bu may indi ci laax bi lu waral laax bi bu ñëwee si si euh, euh, laax bi après bu ñëwee si jàllaabe bi après day daal di ñëw ci laabaan bi. waaw nu bu ma ñëwee ci laax bi laax bi ak ak ak ak jàllaabe boobu dinaa ci ñëwaat. oui laabaan bi. bon laabaan bi mooy jigéen bi nga xam ne ni comme par exemple dafa dafa da jëkkëram jël na ko. Mm. pour rafetal waaw waaw jëkkëram jël na ko. après ñu ñëw il y a une différence entre laabaan et laaxaan. non non c'est moom beneen mbir la. laaxaan mooy ki nga dañ ko dañ ko dafa wan lool dafa wan lool te amul jëkkër mhm. bu ko defee kooku dañuy dem laaxaani waa ay waa këram ñooy dem ku ci kër ku góor ki nekk ah ñun suñu doom dafa wan lool ci seen doom bu jigéen góor la jógee dañoo ñëwoon laaxaan si mais laabaan mooy jigéen bi nga xam ne ni moom dafa tëdd da moom jëkkëram da koo jël kooku bu ñu paree ba euh, xëy suba teel soxlatuñu wo wane sërëg yooyu maire yi nu ñuy wanee ni ah fii di am na jànk boo xam ne ni yeewu na fii dañuy jël di tëgg wane ni jànk yeewoo na fi mais non ba tey mi ngi fa Grand Yoff it mi ngi fay am ba tey parce que. Euh, Grand ay Grand Yoff yooyu ah, yëpp mi ngi fay am. Euh, bu ñu paree aussi nu ñu wane ni waa kër gi mun nañu bañ a wane sër parce que dañuy wax ni sër boobu noonu loolu sër ma ci bëggoon di peut-être à um. mais jigéen bu nga xam ne ne mosul am jëkkër mm-hmm. warul xool sër boobu moo tax ah. léegi nu ñuy nu ñuy nu ñuy yeewee nit ñi wan leen ni ah fii de am na jigéen bu fi tëdd macha allah fees dell dañuy jël ay tama wane tëng dëng dëng dëng dëng bu ko defee waa koñ bi yëpp ñëw commencé fecc xam nga ñu wan ni ni ah am na yooyu waroon nga jël benn war xam naa non loolu thème à am na ay affaire yu doy waar yu nekk si biir bu daal yëfi <laughs> say di ñëw loolu à part la ah, mais dinaa dinaa ñëw ci jàllaabe bi li tax góor ñi di sol jàllaabe bi di oh, exceptionnellement la mu def semaine bi samedi bu nekk rek nga jàpp ci suba teel bi bu nekk aada rek dem guddi ga. ayca ah, bokk samedi bu nekk incha allah aada ak cosaan la donc li tax li ngay laajte dinaa la ko indil laax bi lu waral ñu koy lekk di këppant ak def yooyu na la njëkk lekk bu la gën a kii dinaa leen ko indil dinaa la indil jàllaaba boobu nga xam dañ koy sol dara du ci topp dinaa la ko indil. ah dara du ci topp la indil la baat dinaa la indil lépp daal. incha allah day waaj a takk jabar. a takk jabar moo tax day bëgg entraîné wu wala naa la indi loolu yëpp. kii daal ak tàngaay bi jàllaabe kese. te xam nga si góor. Mhm. waaw te barki démb la ndaw si jàll waaye. Ah. yebbi la def yebbi ak dégg nga boos la nag donc pour en revenir euh, ci muur euh, asthme muur moom dafa am solo ci jigéen pour te dire l'importance bi nga xam ne ni moom la muur am jigéen tant que le maire bi wax sànq lu am solo nee na bu la muurul bu dee da dem kër famille yu mag yi saay boo rombee dañ naan jéeg ju yàkkamti bañ indi boppam te kenn muuru ko donc muur yëpp la xas lay lay leen donc muur yi yëpp la parce que buñ lay muur ci la la say bàjjan bi yëpp sa yaay ndeysaan booy dem yaram daw na tax mu ngi naan sama doom ji nii kat ma ngay dem lan lay fekk xamul. non lii moom su ma doon yow da nga fiy invité benn maire maire bu am na benn maire du du tata Oli. tante Aïda Bass moom bu fi toogoon. Oh. day wàccee plateau bi rek. waaw Médina waaw ah, man man maire bi ma indi nii maire Awa Konté moom jot na ci wax lu am euh, importance. est-ce que prochain épisode samedi bi xam nga samedi bi. dañuy a mën a raaj gën ko yaatal daal. waaw ñu yaatalal ko. parce que loolu ce serait très important bu ñëw ma ngeen boole nga boole ma maire bi ma teg ko fii ci plateau bi. bu soobee yàlla bu ko defee yéen il commencé du ma ñëw wala. waaw da ngay ñëw assister comme que da ngay waaj a takk jabar. bu nekk nga ne ñoom yaa lànk ni ñoo lànk dimanche <laughs> <laughs> yow <laughs> aa ah, dëgg la yow <laughs> nag gis ngeen. Mhm. nit bala ngay naa déet sax nag. xam liñ lay jox <laughs> xam liñ lay jox lan la mi ngi nii bëgg a te mënut. yii dafa neex billaay man yii ma neex. ma nga man dama ne woon samedi bi ñëw ñu koy mhm. bokk yii laa doon préparé. parce naa da dafa neex sëy dafa neex. sëy ci boppam man dama ne Ahmed Aïdara mi ngi ñëw te moom it daa neex macha allah. kon nag donc asma juste pour pour terminer di waxale jigéen ñi paasa ne leen na ñu dellu si waat cosaan cosaan dafa neex. ah waaw dafa dafa neex xam nga ñu muur la nii nga wàcc sa si sa kaw goro xam nga mu uuf la jël sa bopp teg ko ci sa tànk goro loolu rek dafa neex. amul lu ko donc nañu dellu ci waat ci loolu instant yi. waaw man moom personnellement je suis pas trop traditionnelle mais am na parc xam ne man j'aime bien lu ma supporté wul. par contre mooy bruit bi xam ngeen way boobu. déedéet man ngeen ah, yow ñu baree ku mën daan. waaw ku sëyul du ko way ku man ah, du ko way man. kaay ñu bëree kaay ñu bëree ku mën daan. ndeysaan bëree boobu neex na. bëree boobu daan neex na. ma bàyyi ma yem foofu. ba Assane ba Assane tamit. ay laaj bi biir nekk daal man yaay suñu kilifa si plateau bi. moom gàmm bi mu nekk dafa neex. non mais ak surtout ni mu ko waxee sax. non neex na. te loolu sax boo xoolee boo xoolee. nit ñi kaay ñu bëree ku mën daan. <laughs> moom nag daa bëri mën daan dafa mel ni. <laughs> parce que da koo mën daal macha allah mais boo seetloo aussi figure de style musical bu mujjee génn bi mhm. mooy ñaari xale yooyu noonu faama xam naa dina si dikkat ak ñun mhm. euh, mooy ñaari xale yi naan mhm. euh, euh, dama lay yóbbu aar doo. Ah. waaw waaw waaw signature contrat. signature contrat bi la gal gal. di la tam mais léegi léegi mariage yëpp moom la ñuy tegee moom la ñuy ubbee moom la ñuy tëjee di waajal marié yi daal ku ci ah. nekk di la pour le après. grand combat ci diggante jàllaabe euh, bi ak maire yi làmbaat bi yooyu yëpp ñu wax tamit jëkkër ni boo xamante ni xamul dara c'est important parce que ñi ñu bëri aussi dañuy traumatiser seen jabar après da ngay gis ni ni dañu leen di traumatiser après dañu bëgg dara si mbir waaw ba tey da gën a neex rek expérience la pour yéen ñaa ngeen gën a oh. jàng rek mais góor bu xamul dara ak jigéen bu xamul dara tamit dama ciy waxtaan bi ñëw si góor xamul si la ci maanaam sexualité. Ah. góor bu xamul sexualité ak jigéen bu xamul sexualité. puceau ak vierge. Eh, mën naa lii neex na baa ngi wàcc ba zéro. c'est trop bien. oui kii man xam naa lii moo lay yee. yii moo lay yee man dama laa xam. yii moo lay yee nana toj nga fi toj nga fi ñu di la jaajëfal bu baax a baax. dina xaar si yeneen thèmes. incha allah samedi lay xewee aada ak cosaan. Mm. Euh, samedi bu ne rek nee naa leen c'est la première matinale boo xamante ni dafay dalee tàmbale lundi ba. samedi samedi bi nag c'est une grande surprise à ne surtout pas rater dañuy pousse heure bi de 30 minutes rek 9 heures la ñuy fas yéene tàmbale waaye nag dañuy continuer toujours avec suba teelu tey ñu fas yéene dalal ki nga xamante ni mooy Yacine waa borom kii bi rek. non maa ngi fi ba pare maa ngi fi. ñu indil la rek indi sa rubrique. carrière et profil waaw indi mais maa ngi fi. Ah, yaa ngi fi borom elle est bien présente. elle est <laughs> voilà donc ci noonu la ñuy daal di jàll rek ci suñu rubrique carrière et profil.